El Hadj Keita kenn dootu ko présenté ma daal di koy bàyyi mu nuyoo ko mbokkee ndox mi maa ngi leen di. salaamaaleykum si ko ah maa ngi leen di bëggee bu baax di kontaan ci seen déplacement di leen jox seen waaye di kontaan lool ci sama copain Gomis ah di bëgg ci yéen ñëpp waaw kontaan naa. mais El Hadj tey dañu laa fekk la fi nga xam ne ngeen ma de bett ngeen ma de. gars yi bari moom nangul ma leen ko sax parce que waaw yaa ma gën a xam su may répété damay bëgg mu nekk huis clos mais moom Gomis moom sama xarit la moom moom moom. Mhm. moom lu mu bëgg rek yàlla nay jàmm parce que nit boo xam ne dafa yàgg sonn ci carrière El Hadj Keita fu ma ko woo mu wuyu ma moo tax moom lii moom yoon la mu def ko yoon la waaw. mais mbaa xam nga ne yaa ngi soog a répété tey. waaw macha allah répété répétition moom neexoon na trop macha allah. waaw laaj dañuy daal euh, euh, comme que temps bi xam nga matewu ko mm-hmm, ndax mm-hmm. dañ la fekk nga nekk ci répétition te instant yi xam naa war nga sonn foog nga dem mm-hmm. dallu ji mais il fallait que ñu am lu waxtaanee lu tuuti rek mooy que El Hadj mu nekk artiste boo xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mi El Hadj boo xam ne nii tey ñëpp ko bëgg mais El Hadj liñ lay njëkk a laaj mooy El Hadj lan mooy sa sa sa sa option ci musique waaw option sama musique man moom mu jéggi yi ah ñu nekk international loolu la ñuy loolu la ñuy ñaan yàlla maanaam xool sunu papa yi fi ñu jaaroon ba nekk ay légende ñu nekk fa wala ñu dépassé ko rek waaw loolu mooy sunu vision incha allah te. mais mais El Hadj bokk na ci eh, artistes yi nga xam ne mooy njëkk eh, nekk ci li nga xam ne moo di international. Mm. mooy mooy am concours boo xam ne ni tey ay artistes yu mag ñoo fa daje. Mm. nga nekk artiste boo xam ne yaa ci bokk bokk nga ci sénégalais yu njëkk a bokk. Mm. durant loolu noonu eh, lan la la def ak fi mu toll ak sa carrière. waaw yokk na ma expérience parce que xam nga day wane ni musique day wane ni musique amul ba pare euh, ouverture la. Mhm. par jàngal na ma lu bari. Mhm. pour wan ni maanaam musique moom mun na bëtt fépp. Mhm. te ku nekk rek. Ah, am na nooy musique. am ñoo xam ni ah, ci temps la ñuy musique am na ñoo xam ni contre temps la ñuy la loolu moom da jàngal lu bari expérience la quoi. ñu ngi koy sant yàlla bu baax du suñu jàmbaate suñu ngóor loolu la rek jàngala rek jàngala ñu jaar fa waroon fa jaar rek yàlla def ci ñuy ñu dem bokk ñu représenté Sénégal l'Afrique en nañ ko ab ñu dem ba demi final loolu sax la mhm. may nuyu tamit sama benn sista muy Soadou mhm. Soadou Diaw waaw mhm. ah, macha allah maa moom ñu nekkoon woon foofu waaw moom tamit macha allah mu jéngu ko ñafe ko waaw loolu la rek ah, loolu la rek El Hadj ñu nga jugee ci tournée boobu noonu dem ba demi final ñëw Sénégal jàpp boîte de nuit di leen dëbb comme ndox. ah El Hadj fu nga def li ñu naan guichet fermé. waaw sant yàlla la parce que ñun moom ba ñuy guichet fermé moom boobu amaguñu sax single amaguñu sax album. waaw loolu nak sant yàlla la loolu du sunu njàmbaarte. Mhm. du sunu ngóora ah yàlla la ak ak li ñu nu ñu mel ak nit yi. Mhm. ñu fonkee nit yi. fonk waa sunu waa gox. ñu ñu ñoom ñu ñu téye rek comme seen doom waaw di gën a wax ñaaxaat gars yi pour ñu gën ñu ñaanal rek parce que ay ndaw lañ yoo xam ne dañoo bëgg musique te ci musique rek lañu lañu ah ci lu ñu nekk ci la ñu yaakaar waaw te yàlla bu yaakaar tas amiin waaw mais El Hadj ñëwul ma ci Baye Fall bi El Hadj doon ba bu ñu romb ci mbedd mi doo ko xàmmee ba xam artiste wala doo bëri na artiste yoo xam ne tey fii la ñuy nekk di aj seen i vitre mais yow defoo à chaque fois dañ lay gis ngay kaf ak nit ñi ci mbedd bi waaw loolu nag moom loolu moom loolu moom loolu moom luñ juddwaale parce que ay taalibe lañu ay Baay Faal lañu yàgg si ëttu Cheikh Ahmadou Kiram Mbacké Noreyni may nuyu sëñ Ahmad sama al jadid waaw waaw dem alxadim yaa day kon ñun moom mënuñu lenn lu am taalibe rek taalibe rek waaw di sax ci taalibe di dox ci taalibe moo sun borom def nag ñu da am dal nekk ay taalibe modeste. waaw Baye Fall moom boo gisee ku modeste rek xamal ni am na jikkoy Baye Fall. loolu moo nekk ci ñun waaw. mu nekk lu rafet euh, mais El Hadj sa diggante euh, ñi nga xam ne moo di artistes yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi. nickel lépp tawfeex. waaw ñoom ñëpp samay waaw ñoom ñëpp samay. xaw mi la mais ku gis euh, ne El Hadj ak Wally Seck ngeen mel boo xam ne dafa hmm. rafet. tellement que maanaam fu ñu gisee euh, euh, euh, waali kii di waali mhm. dañu gis ki nga xam ne moo di El loolu sunu papa la woon loolu sunu papa la jógee papa Thione yal na yàlla ah. mhm. waaw moom loolu démb la parce que man maay ndaw bu mu njëkk jox penc mi ma man ndaw mu njëkk njëkk jox penc mi mhm. moo fay joué sa waaw ma may may joué chaque samedi waaw sunu papa yàlla na ko yàlla xaare àjjana waaw loolu nag sunu papa la tàmbalee ba mu ñëw ba ci waali waaw loolu sant yàlla la alhamdulilah waaw yow ñun ay taalibe lañ waaw. taalibe lañ waaw ay taalibe mm. mais ñëwul ma aussi tamit El Hadj le 6 le 6 mai. ndax dafa nekk date boo xam ne nii date bu bëri ay ay bruit la. comme ni nga ko mm. waxee sànq. Mm. li ñu fi gis sànq bruit la. xam naa ne ñi ne ci ginaaw ñu ngi waajal bruit bi. waaw bruit mais nga <laughs> jàngatee le 6 bi. waaw waaw bruit du pourtant nag xoolal xam nga affaire yi moom ah. pourtant yàgg nañ comme genre soirée yi ñuy def lañ nii rek waaye xam nga gars yi nañ ma namoon ak koor gi ñu jugee di baaluwaat ak ñëpp di baal ak ñëpp ah ah di ñaan yàlla sunu koor gi ñu jugee yàlla nañ ko sunu borom nangul yàlla jéggal ñu lépp lu ñu ko mës a tooñ ndax ay ndaw lañ te dañuy tooñ te dañuy juum waaw nit matul waaw loolu la gars yi namoon ma moo tax fi mu ne nii kañ moom gars yi moom. foo ma jox leen lu bari. le six bi incha allah dafa amaat euh, dafa am public boppam comme ni ko gars yi di wax. waaw loolu base la loolu yàgg na fi loolu loolu mosu fay jóg sax. waaw public moom loolu sant yàlla la rek parce que yàlla mooy maye loolu. Mm-hmm. waaw loolu du suñu jàmbaate moom laa lay wax rek nga woote rek mu fees mm-hmm. loolu du du du du si yow du si dara suñu mm-hmm. borom la yàlla mooy maye loolu yàlla kese la duñ ci dara duñ ci dara ay taalibe lañu. waaw loolu loolu war nañu nit waru sax xalaat ay fees ak waaw parce que yàlla lu mu yor ëpp na loolu. yàlla lu mu yor ëpp na loolu te suñu borom joxaguñu dara. kon yii yëpp ay waaw ay détails la rek ñun nañ ko neexal rek. waaw na na na soppe yi bëgg. waaw mhm. waaw en tout ñi nga xam ne mooy say soppe dinañ. waaw nañu bëgg nañu bëgg leen di waajal. dama leen di waajal parce que ñoom ñooy chef moom laay wax chaque jour euh, soppe ñooy star ñun du star moo tax ngay gis El Hadj Keita différent mhm. waaw parce que soppe yi ñooy star chaque jour moo ko mhm. parce que koo xam ne bu ñu nee El lii lii lii mu ndax yow bu ñu nee El Hadj mooy tëgg fii. mu dagg ay nelaw. sa nga xam naa ne da ngaa sonn yi métti na te xam nga li nga xam ne li ngay waajal moo di bis bu rëy boobu. Mm. dama lay daal di bàyyi rek nga tàggoo mbokk waaw maa ngi bëggee ñëpp di bëggee àdduna di bëggee sénégalais yi en diaspora bi ñëpp kuy bëggee El Hadj Keita waaw maa ngi leen di naa ci seen ñaani macha allah ñu ngi may dal ah baax na comme ñoo wone ma liggéey moo tax ñu nekk suñu yokk di liggéey rek waaw ah, toog waaw ah, di dund al sabuur le quatre-vingt-dix-neuvième moo de en patience mais du tee tamit ñu toog di xaar yàlla dañ ciy nekk ba suñ boroom ñëw waaw maa ngi béggee ñëpp di bëggee àdduna di bëggee sama staff sama fans yi mhm. sama soppi suma yaay suma jabar suma képp kuy bëggee El Hadj Keita maa ngi lay bëggee di def kooku sama doom Mouhamed Mbacke Dioum waaw kañ merci beaucoup jaajëf jërëjëf ay Euh, mi ngi noonu euh, El Hadj Keita nee naa la kenn dootu ko présenté ci réew mi international ñu naan ko le Neymar de la musique sénégalaise ñu àndoon ak moom fii ci Siweulko TV dañ ko bett nag fekk ko fi muy répété na ko foog waxtaan ndax le 6 lay waaj di bis bu am solo di bis boo xam ne nii nee naa la dat yi bëri nañ waaye gone yi El Hadj taamu xale yi El Hadj Keita lañ moom moom war a ànd ak le 6 nee naa la dina neex dina yomb fii ci Siweulko TV man di jëbitoo maa ngi fa gaañ yi merci beaucoup